لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده الحمد لله حق حمده mbokk jullit yi mbokk téléspectateurs yi xaali Ousmane asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulilahi rabbil alamin alladi xalaqa fa sawwa wa qaddara fa hada nahmaduhu wa nastainuhu wa nastahdih wa naudu bihi min sururi anfusina wa min sayi'aati acmalina lahu alhamdu wa lahu alkibriyaau fi alsamawati wal ardi wa huwa almudabbiru alxabiru alalim wasalaatu wasalaamu ala man buisa li iqamati alxujjati walburhan sayidi alawalina wal axirin sayidina muhammadin sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa xulafaihi wa man wala asalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum salaam Chérif ñu ngi lay nuyu jërëjëf di nuyu mboolem téléspectateurs yi 2 yi nga xam ni ñoom ñëpp mhm. waxtu wi ñu ngi seetaan seen émission bii di aj màkka mhm. di leen ziyaar fa tabarakallahu di leen ndokkeel di ñaan yàlla subhaanahu wa taala tabaski ji ñuy dëgmal yàlla nañ ci yàlla yóbbu yàlla nañu ko yàlla nangul bismillah ayda kon nag dañu am suñuy gaynde réew mhm. muy jëmm ju baax ji jëmm ju tedd ji di oustaz Alioune Mbaye ci xam-xamam bu rafet bi ci pédagogie bi te toogaay bii mu toog oustaz Alioune Sall mi nga xamante ne ngoom la mm-hmm. ñoom ñaar ñuy àndandoo nekk ci mission wu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di defar réew mi yàquñu fi dara ñëwoon na toog fii ca mosquée de la divinité mhm. ci émission bi di aj Makka waaye oustaz Mor Thiam ñëw na toog fii oustaz Alhaji Idrissa Gueye ñëw na toog fii waaye kii nga xamante ni moom mooy Cheikh na Ahmed Tijani Ndaw mhm. moom i tamit toog na ci émission bi kon nag foog oustaz Abdoul Aziz mhm. moom i tamit ñëw na toog fii kon nag dañuy xool ñi nga xamante ni dañoo ràññeeku ci réew mi ci lan la ñu ràññeeku ràññee ko ci lu baax mhm. li ñuy wax siiw yomb na waaye siiw ci lu baax moo jafe waaye oustaz Alioune mbay ku siiw la ci lu baax siiw ci xam-xam siiw ci tedd nga waaye siiw nag loolu yëpp dafa am lu ko couleur muy makaarimal axlaq mbaaxam wàccam woyefam waaye gentillesse am defe naa ni yokk na diine gi xaali Ousmane barakallahu Chérif oustaz ñu ngi lay nuyu Mbaye macha allah xam naa tey jii ñu ngi la dalal ci émission bi nga xamante ni 2STV moo ko may mbokki téléspectateurs yi 2 waaye may ko jullit yëpp fa tabaarakallaahu loo gis nag dafay am sabab mu ngi sababoo ci bi ñuy def suukaru koor at mu jot mbokk yi naan émission yi dafa gàtt dafa gàtt ba Covid bi dugg yàlla dogal aj màkk amul 2S di dimbali jullit yi di leen wéttalee émission bi ñuy wax aj màkk Chérif Mamin Haydara jiite ko ànd ak mbokkum taalibeem tafsir Abdourahman fa tabarakallahu waaye bi màkk gi ñëwee it nit ñi fa tabarakallahu waxtaan wi neex leen émission bi waaye ñu yëgit ni benn jullit bu defaru rek jar na def émission waxuma la fukki fan waaye fukki at jar na ko macha allah te am na jullit yoo xam ne ñu ngi ciy jaar di defaru macha allah ju ciy dalal nag ay boroomi xam kenn du la présenté Alioune Mbaye fa tabaarakallaahu ci xam-xam comme ni ko Chérif waxe oustaz Alioune bay ci wàcce boppam macha allah oustaz Alioune Mbaye fa tabaarakallaahu ci pédagogie am waaye oustaz Alioune Mbaye bi nga xam ni macha allah yitteem yëpp mooy nu muy def ba defar doomi julit yi sa liggéey yëg nañu ni dem na ba dugg na taseet ndax fa nga jógee nag macha allah fa nga bokk ñoo bokk taseet ay ñaari kaw kaw la ñuy daje sérif moom macha allah mooy sérifu Ndakaaru yàlla dogal na suñu maama nga woon got sa maam nekk taseet ñoom ñaar ñu duggante doon lépp ba tey yaa ngi liggéey daara joo xamante ni mu nga ca taseet ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na àgg ci jàmm ak salaam waaye ña ngi ñaan jullit yi lu ci waay mën a dugal rek nga xam ne sa bopp nga ko defal ca daara jooju ngir mu àgg ndax bu daara yi bari Mhm. li ñu naqari yépp dina faju te li ñu naqari du dara lu dul jikko yu bon yi lu dul yu ñaaw yi bu daara yi bare ba ñu yar xale yi mhm. lépp dina deñ oustaz tey dalal nañ la ci émission bii di aj màkka ñu ngi dëgmal tabaski fa tabaarakallaahu jullit yi ñu nga ca màkkatal mukarrama ak medinatul munawwara mhm. lan nga indil mbokki téléspectateurs yi 2S oustaz bismillah kàddu gaa ngi doon barakallahu barakallahu fiikuma wa ahsana fiikuma amin euh, tahiyatan mubaarakatan min indillah tahiyatu ahlul janna alaa hiya assalaamu warahmatu walbarakatu walmaghfira wa ridwan alayna wa aleykum ala jamii almustamiin walmushahidin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatulah moom de waaye daa mel ni sax xamu fu may tàmbalee ndax ndax mbaax gi ngeen baax ak bëggante gi ngeen bëggante ak yëg gi ngeen yëg ni ñoo bokk équipe ndax bokk équipe ba pare am penalty di ko rate baaxul <laughs> te ñun dañuy am équipe di am penalty mhm. penalty yi mooy yii bari na yoo xamante ne nii penalty mën na ci dugg mhm. te équipe bu amee penalty marqué rek léegi mu dem yéeg ci kanam mhm. mooy lii lim nga fi ñu bari ñoo xam ne jaar nañu fi ci plateau bi loolu mooy penalty bi mënoon ngeen ko gaar ngar daajoo rek te mate ngeen ko xam-xam ba yegg na fa pédagogie bi intelligence bi lépp egg na fa te ñëpp nawloo nañ koy ku baax ci réew mi nawloo na leen kilifa kilifa diina yëpp nag parce que du fa ngeen bokk sax ràññeewuñu ko waaye même ba ngeen yëgee ne umma islam bi ñëpp benn lañ tànt bu ngeen nekk wala mbooloo mu ngeen nekk bu ngeen daaneelee kuy murit kontaan na kuy laayeen kontaan na kuy xaadir kontaan palaat micro bi nag lu ma gàtt gàtt sax bu ngeen ne asalaamaaleykum lu ma gàtt gàtt képp ko xamante ne toqal limaan mu ngi sa xol sa xol sedd na kon yan yàlla lafa leen cet amiin te bàyyee leen ak seen sago di gërëm sa mag ju baax ji sëriñ mii nit ku baax la waaye itam ku baax nga ndax ku neex a àndal nga yal yàlla barke seen ànd fu ngeen mën a jëm àdduna ak alaaxira ne leen wóor ne xool sedd na moom mi nag sama sëriñ la mhm. ndax maamam moo doon sunu sëriñi maam lislaam ak tariqa bi bu duggee ci tund joobaas googu def fa ay fan ba néega ni si yàlla ak maamam la foofee mu def daaraam je boo boo rombee noonu mel nu jëm tuuti puut puut ndof mm-hmm. foofee lañ doon bàyyil baayam góor gi daawru jóob daan ko daan ko jiite dem naa ca ba taay kon loolu suñu xol sedd na baayam tafsir xalifa euh, gay yor suñu euh, suñu imaamu dëkk ba Sarla Faal ak Jibi Faal foofee ñu leen denc sama karamu daara ja baay bi moo leen fa def ba fi na ne kenn du fa yëngal dara te teewul mbaa ndigalam mm-hmm. kon loolu tam ñun tam ñu ngi lay kontaane jërëjëf yow na ngay le grand chérif <laughs> bu baax a baax jërëjëf ah, li nga wax léegi nag mm-hmm. ci tabaski daanaka mooy àdduna bi ndax ibrahima kaana ummatan wasatan mm-hmm. ibrahima dong buñ ko jàngatee mën na régler suñu réew mën a régler suñu njaboot mën a régler bi wala kum fi ibrahima hmm. uswatun xasana hmm. yàlla nee na xool leen ci moom roy leen ci moom copier leen ci moom ndax am na ay qualité ak valeur yoo xamante ne mu ngi ci ibrahima génn góor rek la hmm. goo xamante ne du lekk lu xaram du njaaloo du jëw du lekk riba gëm yàlla bëgg yàlla juddoo ci capital bi sa baay bokk ci mouvement présidentiel bi am ay ay ay ay avantages am lu nekk nga dumóoyu ko xamal ko ne lii ngeen di li ngeen gëm man gëmuma ko yàlla mooy sama borom. Mhm. kon mën nañu jànge xaat ni teraanga lu mu rëy rëy jëm ci yàlla rek am solo. Mhm. ana baayam da nga ko dégg duñ tudd fenn. ana yaayam ana buur ba ana ñoom Namrud. Mhm. waaye Ibrahima ba léegi diina bu ñëw dina ko reconnaître mbaa yàlla du la reconnaître. Euh, ba Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam itta ittabi' millata abika Ibrahim te ku toll ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi yàlla joxuñ ko ne xoolal si moom kon Ibrahima moomu ku jara jàngat la. Mm-hmm. waaye euh, ci ci minute gàtt yi nu am génn ga mu génn ak waxante ga mu waxante ak buur ba fa ngay gën a xam ne Ibrahima ku gëm yàlla la ba ñu ko nee daañu la def loo xam ne dootuñu ko def mbindeef te ku juutatu bi ñu ko waxee dootu ko defaat. Mm-hmm. mooy taal ab séb bu rëy mbaq ko avant ñu koy mbaq ci sedd bi Euh, euh, malaaka mi yore taw bi. Mm-hmm. ñëw na ni ko waxal sa borom mu jox ma ndigal ma fay ko mu ne ko jër jëf rafet na waaye comme moom moo nar tax ñu def ma nii mu ngi may gis. Mm-hmm. malaaka mi yore ngelaw li ñëw wax ko ko ni koy waxal sa borom mu jox ma ndigal ma ngelaw mu ne ko jërëjëf moom moo nar tax ñu def ma nii gis na ma te ndimbalam moo moo ma gën a seen ndimbal. Mm-hmm. gis nga sunu borom subhanahu wa kenn du def pression ci moom lu jot rek mu def ko waaye gis nga ba ñu ko mbaqee di ko mbaq di ko mbaq pour sànni ko ci biir ci la sunu borom dura intervenir te bu baat ba kat gàtt yaa naaru waaw ku nii bardan wa salaaman ibrahim kese <laughs> yow safara lu mu yàgg-yàgg na nga sedd te ànd ak jàmm ci kaw ibrahim mm. ñu ko ca but ci biir safara wi mu def ay weer ñu jeqi mu mel ni yére ba sax dara takku ci allahu akbar la nga kon mooy ndekete safara du lakkee falaam boobu ci ndigal lay lakkee mhm. jàngat na ci ibrahima itam ni ba mu demee war rendi doom ja tëral doom ji war koo rendi bomb na ba sonn daggul kon yi gën a garaaw nit ñi di jëfandikoo jafe ni ku ko ku ko yor ay am nga ngànnaay mbaa ba mucc nga mhm. taxul nga am kaaraange mhm. kaaraange ngi ci nga gëm sa borom subhaanahu wa ndax rendi na doomam te deewul sànni ko ci safara te lakkul kon baatub kun fa yakun ki ko yomu allah subhanahu wa taala loolu la jàngale noonu la doxal waaye nag yàlla may ko jabar ju baax muy saarata mooy aaw bi aaw bi dund na téeméeri at lu manqué tuuti amul doom waaye ba jëkkëram di gàddaayam dana ko doom fi bàyyi mm. dëkk ci capital bi dem dëkk ci àllu kànj bu moo ko gënal te fekk maa ngi seen ndigal new sa wet mhm. waaye ci passage ak natt yi suñu borom subhanahu wa bi mu jaare biir Égypte te buur bi confisqué ko Ibrahima buur bi ne ko kii nga àndal ko mu mu ni ko sama jigéen la wax na dëgg mhm. ndax doomu baayam la takk mhm. ndax xaaraan al akbar moo jur asaarata te xaaraan ak azra ñoo bokk baay kon Euh, doomu doomu doomu doomu frère am la. Mhm. doomu doomu bàyyi xam la. Mhm. mu ne ko wol ma ko. Ibrahima ragal nag su ko wooyee man na am mu rey ko su ñu ko noon maay mooy maay jëkkëram mu rey ko ngir jëfandikoo ndax buur daa saay saay a wax. Mhm. buur yi jëkkëram saay saay. léegi nag euh, Chérif mu ñëw comme matadik euh, buur yi yu jëkk ya mu xool ndaw si ni kii dama koy jëf jëriñoo waaye yàlla def loxo ya sem. mu ne ko yow loo ma def mu ne ko def ma la dara mu ne ko sama loxo yëngatul mu ne ko ah, yàlla. Mhm. mu ne ko ñaan si yàlla ji mu delloo ma samay loxo. mu ne ko ah boo bu la delloo say loxo di ma bàyyi mu ne ko ah, dinaa la bàyyi soxna si ñaan ma bàyyi ko mu jàll. mu ko ginnaaw mu xool ko mata dig doomu aadama jàppaat ko mu kii ku mel ni kii te sa soxna si dafa rafet. Mhm. yool mu ndaw mu yegg ca kaw. lépp lu ñu seet ma nga ca moom. loolu taxul mu mën a maîtriser wu. Mhm. bi mu jógee ne bëgg koo song nag tànk yeeg ndigg léegi lépp paralysé mu jooy nag ci kanamu soxna si ni ko dama bëgg nga ñaan sa borom biira moom mu belloo ma samay cër ma bàyyi la nga dem mu ne wax de mu ne ko boo ma delloo samay cër ma ma mu ñaanaat allahumma atliq mhm. mu ne ko waxuma sa bàyyi la nga dem mais dama lay jox ab jaam mu lay liggéeyal foo mën a jëm nga dem ko fàttali ko xam ni kat tuub naaw tuub gu rafet hmm. ci la dem jël nag ku ñuy wax Haajara ndeysaan mu bokk ci giiru copte yi ndeysaan xam nga Égypte yaa ma gën xam hmm. waaw waaw daanaka lu mat vingt mille habitants yoo xam ne ñuul ñoo nga fa hmm. Cheikh jëp Diop ci nga xam ne Égypte la loolu moom def na ci yu bëree bëri yoo xamante ne da xam ni Égypte daraa ngi fi bi ñu yeggee mu bëgg a nettali borom këram ndax xam nga bu fekkee ñëw na rek ni borom këram defuñu ma dara borom këram mën na am dut wala am ñu gu ñu gi xol waaye yàlla dindi rido yi Ibrahima doon jàkkaarloog moom ca biir néeg ba. allahu akbar. mu ñëw mu dara cong gu njëkk gi gu mujj gis naa ko mu ne ko ah! ko waaw mu ne yaa dem dayoo mu ne ko sama borom la. ñu ànd ñëw fii ci Palestine dëkk fi. tafsir mu toog beeg mu ne ko nijaay dund nañ lu yàgg te yow missionnaire nga. te missionnaire bu fekkee amul njaboot amul relève bu fi jógee rek ba mo moytu mission bi daanu sama jaam bi te ma koo goreel may la ko maam a jël musuwaar ga jooy jooy xanaa da koo gëmewul léegi nag ñu léegi nag question bi mooy ndax daa bég wala daf daa naqar yi ndax jooy mun ngeen jaay jëlul jooy tabarkàlla jëlal Ibrahima jël ko diir bu gàttu rek soxna si woon lor mu jël ah feeraa ngi commencé moog moom moog moom ba doom juddu jooy yi di takkar naase am nga eh, loolu taw bu góor eh, ci kër gu xat nga doon doomu mag te nga doon doomu mag Ibrahima gën a bëgg xale bi xër ci moom soxna si dem ba sentir vitaay ndekete feeraa ngi yàgg na fi torop jëla ko xëy ni ko nijaay bëggatuma teg sama bët sa doom ji ak sa jabar ji nañu génn mbaam a génn te bu ma la ko waxati <laughs> ah Ibrahima fenatal ñetteel bi fan mu ne ko li ma la wax def ko mbaa ma takk samay bagage sunu borom nag ne ko defalee sa jabar wax génnal te topp sama joxoñ bi mu topp joxoñ bi ñu war seeni mbaam ak seeni cin ak seeni saaku di dox di noppalu saawu egg ci barab nag ne ko fii la sunu moom du déedéet moom moom moo ngumb fii kaaba gi nekk tey mhm. sërif bunt bi fi bunt bi féetee foofu fi bunt bi jàkkaarlool mhm. loolu mel ne bunt noonu waaw fi mu jàkkaarlool moo jàkkaarlool nag néegu soxna si ndeysaan léegi la waaye bu njëkk amoon benn karo bu ñuul boo xamante ne fa lañ doon mandargale teenu sam-sam bi mhm. ndeysaan baarakallah mu ni ko dalal fii mu ni ko fii mu ni ko waaw fii la sama borom wax mu ni ko fii àll kertandaŋ bii mu ni ko waaw fii la sama borom wax sa borom moo la ko wax mun ko ah, waaw baax dinaa fi toog ngir moom Ibrahima toog fa ba fégal war a delluwaat Palestine ca aawam bu baax ba ni kon suba laay dem mu gungee ko ba ca montagne ba gis nga foofu safaane noonu. ndeysaan foofu aw yoon la woon loolu noonu mm-hmm. <laughs> ah, ko nijaay ilaa man takkilu na koonu fi bàyyeel. Mm-hmm. mun ko yàllaa la fi bàyyeel. mu yàlla yàlla moo mi la wax nañu dëkk yi moom nga ma fi bàyyeel mu ne ko yàlla doy na ma yàlla du ma sànk mukk Ibrahima dem geestu gi soxna si moog doomam jooju mënta ñàkk bañ a dem parce que situation oblige. Mm-hmm. faaw mu dem. ndeysaan mu dox geestu daal di rabbi askantu min zuriyati bi waadin xayri si zar inda baytikal muharram yàlla fi ma dëkk aw xur loo xam ne àllu kerte nag la dara nekku fi. Mm. ndox amu fi garab soxu fi. kenn nekk ko fi moom dong dong ak sama doom ji yàlla yàlla nga leen wërsëgal meññit yàlla nga leen wërsëgal naataange ñaana ñaana ñaana ñaana ñaana ñaan lool nag moo jur dëkk ba léegi nag bàyyil Ibrahima ak soxnaam te nga toog fii suti <laughs> soxna si li nga fi bàyyiloon ci ndox jeex na mhm. xale bi mar na tàngaay yu màkk yu jàpp nag ko xeer yi mu jaaxle nag parce que wuti pexe jot na góor gi dem na ndox amatul mu dem yéeg nag foofee ñuy wax safa ca montagne ba xool ci kaw ku nekk fii xanaa kenn dégguma ay hmm. eh, ku may walluwaay kenn déggul dara mu wàcc yooru daw ba marwa ndax góor nekkul fii kenn dégguma am ay eh, ku may walluwaay sama doom jaa ngi deewaay Ismaïla ma ngay jooy ba ngar ndax mar ak tàngaay wa sut nag liir bu góor mu daw wa safa ay ko may wallu waay ndox waay ay ku may wallu ba mu demee ba def juróom-ñaareel bi fële ca la am lu ko woo sol yëre yu weex tàll yor jëmmi nit di ko soxna si dellu sil sa boroom nee na mhm. gëm gi nga gëmoon ci moom ak wóolu gi nga wóolu woon ci moom bala sa jëkkër ne ba nga ne koo ma fi bàyyil mun na yàlla laa la fi bàyyil nga ne yàlla duma sànk yàlla du la sànk mm. mu dikk fekk nag zam sam fi Ismaayla di wéq tànk yi ngir mar bëtu saan eh, ba ne fa tël ndox mi naan bëx bëx bëx ànd ak pression boo xam ne ni moo ëpp doole bu S2. E. Mm-hmm. tubaarkàlla ah mu xool ndox mi di daw mu bañ ndox mi daaneel néega mu ni ko zam zam ci làkku hébreu mooy dalal boobaak léegi nag baat boobu mu ne kon zam dal koo soxla zam-zam yaa koy fekki. dégg naa buur yi def nañu pexe mu nekk wut ay tiwo ñot di xëcc courant waaye ko solo sam-sam kon ko Médine rek sottiwul ñëwal root rek yóbbu waaye toog see sama sachata muy ñëw noonu du ñëw Ibrahima dellu na matal na mi ngi ñëw waaye lu jiite lool waa giir Jurhum damay bañ mu gudd <laughs> waaye arab yi am na xeeti picc yoo xam ne boo ko séenee rek jàppal ne fañ foo leen séen rek ndox am na fa loolu mag ñi dañ ko daan def takk mm-hmm. waaw fii ne même asamaan si am na nu muy mel nii mag ñi dañ daan ni léegi mu taw am na xeetu ngelaw boo xam ne bu la dee ëpp léegi muy xeet ki yooyu léegi nga xam ne léegi kii mm-hmm. bu même bu jeex muy jaasit ngelaw yi jaas yooyu da nga xam ne léegi nangam nangam mm-hmm. yooyu la mag ñi daan def léegi waa arab yi ñëw ne ko soxna si ñun kat dañoo gis fii picc yi dinaaw rek ñu ñëw gis ndox mi léegi nag dañoo ñaan ndigal ñu ñëw dëkk ak yow mbaa ñu jo bokk ndox mi bu sa doom ji màggee ñu may ko jabar soxna si ni ko baatama fi bàyyi ki ma fi bàyyi mooy sama borom kër mhm. aw ma sañ sañu waaw aw ma sañ sañu déet waaye nag man ngeen jëfandikoo ci ndox mi bu ñëwee ngeen waxtaan ak moom lu mu leen wax loola laa wax lu mu leen wax waxuma gis nga gis nga jigéen toujours na muy delloo baatu jëkkëram ak darajey jëkkëram na mu koy yëkkatee Ibrahima ñëw dikk fekk nag yeeg gileem yeeg bëmb jileem dukki bu xumb lool mu waaw lu xew sama ginnaaw mu yër na seen ndox mi di bël borax mu ñëw ndeysaan xaajara laxasu ko ni ko luy lii mu nettali ko xibaar yëpp mu sant loolu yàlla sunu borom ni ko nag sa jabar jële nga bàyyi yéene bu rafet bu mu am ci yow ba may la mbindaanam wala may la doomam yër nga am doom yàlla dina ko may doom te boo am na quatre-vingt-quinze ans ndigis tafsir amum doom tekkiwul ci nii ab jànq nga mbaa ak màggat nga xam nga bu dee ménopause rek xaajana dooro na ko def mhm. waaye teewul yàlla jox na ko doom mhm. dëgg la inna ala kulli shay'in mhm. suñu yaay Aïcha ñaata at la ko sang bi takk à l'âge de neuf ans sept ans neuf ko mu dund ak moom vingt musul am doom mu génn àdduna bàyyi ko soixante-trois mu génn àdduna musul toog góor ci la kon xëy xam nga ni kon yàlla moo yor mbir yi. Mm-hmm. Mm-hmm. kon am na doom tudde ko Isxaaqa. moom Saarata. waaw moom Saarata. yàlla may na ko doom lu muy màggat màggat yàlla may na ko doom. alhamdulilah allazi wahabani alal kibri. Mm. Ismaila. wa mm. kon góor gi la mu la mu ñàkkoon lépp am na ko ci ay jabar yu baax a tax mu am ko mu des benn aspect benn doom dong nga am. wu jëm génne ko moog yaayam ñu dëkk fii nga gént sa borom la rendi ko foofay problème bi mu ñëw ni doom ji inni arafil manami anni asbaxuk mun kat sama borom dama gént ni dama lay war a rendi mun ko papa yow yonent nga yonentu gént defal li ñu la sant yaa abati fa'al maa tu'mar satajiduni insha allah min as-sabirin ndigal la man du daw duma dem fen rendi ma mun na ko dëggal ak waaye nag maag sa yaay ñoo ko bokk baal ma waxtaan ak sa yaay bu mu ko waxtee yaay ji yaay ji d'accord ci moo loo waral mu yóbbu ko ca jamara ya di ko fa rendi ji waaye iblis tam tay yëwul benn yoon ngir eh, sànni ko jamara ya baal ma nag bi fa tabarakallahu ñu <laughs> ngi ñuy ni est-ce que ñu amoon ci waxtu jeex na dëgg la fi nga ñu jëlee macha allahu oh. ba fi nga ñu indi mhm. alhamdulilahi rabbil alamin dinañ amaat occasion boo xamante ni su boobaa xam naa ni da ngay def rek kuuru professeur bu mën a jàngale arrière tuuti rek dem ndax indi nga ñu ci saarata oh. ak digganteem ak ibrahima muy aawo bi waaye indil nga ñu haajara mhm. fi ko ibrahima jëlee ba mu ñëw waaye indil nga ñu fa tabaarakallaahu ba diggante Ismaayla mi nga xamante ni mm. mooy taawu Ibrahima waaye ñaareel bi jur ko fa ko bàyyam ne inni ara fi lmanaami anni asbahuka fanzur maaza tara qaala ya abati fal ma tu'mar satajiduni insha allahu min as-saabiriin mm-hmm. rendi na ko am rendiw ko bu dee rendi na ko fu mu ko mm. bu dee rendiw ko lu waral rendiw ko mm-hmm. dinañ am occasion insha allah su boobaa eh, dafay dox ci wàllu dëgg ci wàllu minute waaye su boobaa insha allah di nga ñu wax bu dee rendi na ko ko rendee fu mu ko mm-hmm. rendiw ko lu waral rendiw ko ko Chérif nga tàggoo jox oustaz mu tàggoo incha allah waaye xol yi soreeti na tafsir Abdourahman ci lii nga xamante ni sëriñ jox nañu ko tey waaye ci biir waxtaan bi da nga gis ngëm yàlla mhm. ak dëggal sa ngëm mhm. te la supériorité des hommes est fondée sur la foi mhm. ngëm l'inégalité des hommes correspond à l'inégalité de leur mérite et de leur piété ngëm borom bi moo waraloon tey saarata mucc ci buur bi waaye gëm borom bi moo waral haajara am teraanga gi waaye gëm borom bi moo waral ibrahima am cër googu ci njabootam ba yàlla du ko wax naan inna ibrahima kaana ummatan qanitan lillah tey yóbbooti nga xol yi fu sori ubbiwaat nga xel yi waaye yokkaat nga xam-xam bi jërëjëf oustaz oustaz bismillah nga tàggoo rek macha allah ci benn minute baarakallah sant leen maat jotaay sant leen bu baax yal na yàlla barkeel seen ànd amiin sant kër gi sant borom kër gi yaatal gi mu yaatal lislaam hmm. yàlla na ko yàlla fay yéen tamit yàlla na leen yàlla taxawul ni ngeen nekk soldaaru l'islam di xeexal l'islam fu ngeen toll di waxal l'islam fu ngeen toll yàlla na ko yàlla gis te bu ko gis yàlla na ko wane amiin yaa rabbi ñu ngi lay ñaanal daara ja yàlla na àgg ñu inauguré ko ci jàmm ak salaam nga ñëw jege si macha allah bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha wa bi sahbihi wa taabiina lahum fa hum sadatuna wa nada xaalis macha allah jërëjëf macha allah ustaz yal na la yàlla fay jërëjëf ma dara waaye yombal gi rek yombal macha allah yàlla ñu ko yàlla fay xam ne ñun ñëpp sa njaboot lañu jërëjëf jërëjëf jërëjëf barikal barikal alhamdulillah allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk labbayk alhamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak